waaw lu ma wax mooy ma di féliciter samay joueurs vraiment di leen wax ni chapeau def nañ match bu bu bu bu bu musclé bu métti tey mat quart de finale yi huitième de finale yi waxoon naa leen du yomb parce que seetaan na équipe bi keroog euh, Alsane Digo équipe bu baax la mais vraiment bi ñu mi-temps naa leen kon waxoon naa leen ni deuxième deuxième quarante cinq minutes bi mooy gën a métti fuuf fuuf fuuf première quarante cinq minutes bi donc vraiment man leen mental moo koy gagné ak ak ak li ngay def mooy tax nga mën a conserver euh, avantage bi nga am donc vraiment xanaa di féliciter joueurs yi di leen wax ni oh, ay jàmbaar lañ daal. waaw parce que xam nga tey bu ñu commencé dugg huitième de finale yi xam nga dóor mu toog il faut nga changer il faut nga changer donc ñun comme mëne nañ leen 1-0 wax naa leen ñun ñu ngi doon jouer 4-3-3 mais bi ñu leen mënee 1-0 deuxième mi-temps bi dama lay wax ñoom dañuy ñëw. dañuy ñëw mais bu ñëwee nañ leen xaar pour contrer leen amoon nañ amoon nañ fi troisième bi am amoon nañ ko fi donc euh, ci loolu laa leen wax ne leen xaar leen ñoom dañuy ñëw deuxième mi-temps parce que équipe bi la plupart boo ko mënee premier mi-temps deuxième mi-temps ñëw waaw ci la vraiment essayer pour pour pour jéem a conserver résultat bi bu ñu mënul am deuxième bi ñu conserver résultat yi daal.